حبيبي لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبيد أجاب تغيير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للاله يسير سوري وايامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهم الستور نزولي كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وقصور قصوري خلق والأهل عني تفرق لمدي الذي عنه المدين خسير خرج علي ضمير لو تكسابي وأدورداه ومني لو سكن يكون كثير فدمت ببسر منه أبقي شكوره علي سفار والمكوس قبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه دليلا به الناس صدور قبور démb ci ngoon yaa ma ni am na mbokkum taalibe mu ma ni mi ngi fi ñëw nag yoo xam ni tey lañ ko mos gis moo tax man la Ablaye Sylla ko def lu am lu rëy alxuraan ay wax alhamdulilahi le si xalaqa kulli shay'in fa qadro taqdiran yàlla bu ne maa ngi sant ndax moom kat mooy moo mooy bind di dogal ta lenn lu mu doon mu amal ko ab tey ngeen ñëw rot ci ëttu Seydi Hadj Malick bii nga xam ni jël jëlee leen nañu adduna bi fi ñu ko teg ci xam-xam ci yar ci sutura ci teggin waaye ci bëgg umu islam bi yëpp nekk nit koo xam ni tey alam bi yëpp àndandoo nangul koo xam-xamam loolu suñu fierté la ñun ñu sopp Cheikhul Hadj Malick ndax dañuy wax ni al ilmu huwal imam xam-xam mooy njiit te d'accord nañ ni Afrique noire gii buñ doon génnee ñu ci raw koo génnee boo cay teg dañ ca teg Hadj Malick mbaa booy départ ci Hadj Malick ngay départ yar ba ak sutura ak teggin se dama ko dama koo jëlale Ablaye Sylla Ablaye Sylla Ablaye Sylla def jëfam juré ji mu def ngir yàlla terale ko Seydi Hadji Malick ak fameem ma ni lii mënul ñàkk daral bi yàlla dogal na man sama bàyyi fi nen ànd ko Cheikhul Hadji Malick Maodo ba muy nekk benn nag ñu di ko jëlee ji ca Cheikh Al Hadji aj Aziz Dabakh ca daralam mu di ko daq di ko indi fii ñu di ko defar loola booba ak tey buñ ko doon xool dem na pendant des années yàlla di ñu dimbali sama wuy jur làqu keroog bi ñu ñëwee ci Seydi Hadji ni ko ah ñun de dañu ñëwoon ci continuité liggéey bi def ma ni Mor loolu yéen ko moom mi ngi noonu ñu di ca ànd ilaa yow mi na hësa ànd ceeg bay de ba bi nga xam ni ku ko xam xam ni doomu sëriñ bi la taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti xaaj loolu moom dina doy waar di mu ne ma nan toog rek tey diglu ñu jikki ba yàgg léegi 23 heures ma ne ko ñu toll mu ne ma gars yi départ nañu nis tuut ñaari camion remorque dugg ci kër gi mais nag ñëw ngeen fu ko jar de wàcc si ngeen ci Tivaouane foo xam ni tey bu ñu doon wax dañ naan ci xolu Tivaouane la bokk ki ngeen wàcce nag yi ci këram ala jab da tabax ko jur ja Dabax Seydi Aj Malick ko jur kenn ku ne xam ne ni duppi koo na maamam dëppoo ci ni ma ko waxee léegi ci xam-xam ci suutura ci ay teggin ci bëgg nit ñi waaye bëgg njaboot lii munta ñàkk kanam lay jëm Ablaye Sylla nag ñu ngi ñaan barke bu mu sa topp nit ku dugg caawan yàlla bu ko ci kenn ëppale la ko tàmbalee ci ay maam yàlla bu mu jéem lu mu tële yoon wu mu dëgmal la ca di pakk yàlla na ko yàlla déjji lii yàlla na ko yokk ba mu yëg ni yokk na fu mu mus a def mbaax di ko daj yàlla na kawe fii te yaakaar nañ ci yaakaar nañ ko nag ndax fi mu ko def dey ñi mu ko defal ak ni mu ko defee ak fi mu ko defee fi ndax fii dey kenn ku ne xam ne ni tey bu ne Cheikh Al Hadj Dabakh moo ne ci néeg bii kenn du ko weddi ndax taawam bi ko wuutu dey mate na ko ci xam-xam mate na ko ci juddu mate na ko ci mbaax waaye mate na ko ci ab yar waaye mate na ko ci sutura kon bay di damay wax sama bokk yi nga xam ne ñu indi teraanga ji yàlla buñ jéemati luñ tële nii nu àndandoo yàlla nañ ko àndandoo di dund bay raamaan àndandoo ko dem aljana ah def baax nag baax rek lay fay comme yàlla doon wax afahal jazaaw ihsaan ilal ihsaan ihsaan rek la Ablaye Sylla di dajel yàlla na yàlla boole ko ca ñu yàlla di yëkkati te bu leen xesee yëkkati dootuñu wàccati ilaa yow mi xiyaamatil akbar defal ko yiw adduna defal ko yiw alaxira yokk ko ci biir yokk ko ci biti lii mu def daal tey ci daral bii nga xam ni wax naa léegi ni son bàyyi ko doon def di ko jëli ci daralu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh di ko def benn nag di ko indil taawam bii ñuy dem ba nag yi ñu di ko séddale tey. lii ay caaxaan defu ko li toog fa nga war a toog a koy maye lii def la nga war a def koy maye lii mel na nga war a mel koy maye waaye nii nag jaasul nag ci Cheikh Al Hadj bii ndax kenn ku ne xam na ni xëccoowul dara wutiwul dara laajiwul dara lépp teg na ko rek ci kanamam bàyyeeg yàlla lépp. te xam ne lu jot yomb kon xaj bay di ah sunu guddi tey gi dañ koy fàttaliku di ci sant yàlla nag di wax itam nag ni daral bii tey de laa mus a gis jaamu bi yàlla bu ne indi nga fi sa teraanga sëriñ bi buy ñaan da daan wax ni la ko tàmbalee ci karaw ya ba ca béjjën ya ba ca weya ba ca bopp ya ba ca tànk ya ba ca yax ba ca sidit ya yàlla na yàlla def ko aw yiw jaam bi indi lii jël transport am def ci ay nagam indi ak ni dëkk bi xate di rayante ba wàcc si ko fii yàlla na yàlla def loolu lépp yiw tegal ko ko ci balance yiwam waaye Ablaye Sylla mi dañuy wax ni yàlla na yàlla def ko yiw fulandi ko fulal ko ko adduna ak alaxira ah, kon dama yeew foofu dina dinaa mos a rawantaal mu mu mu mu def seedeem waaye daal eh, wax bi yàlla doon wax calay lay tëje wallazina amanu wa amilu salihat la nudxilanahum fi salihin te kat rangom sula yooyu buntu ba tëjuwul te du tëju ndax bu tëjuwoon àdduna tukki te du tëju ba ba muy soob yàlla foofa nag dañuy wax ni ko fa yàlla dugal yaa nga ca biir an bi yaaw ya yaa nga ca biir laqtaab ya yaa nga ca biir nujabaaw ya yaa nga ca biir sëriñ sa yaa nga ca biir aarif ya waaye yaa nga ca biir an bi yaaw ya ndax koo fi tuddu ci mbaax mbaax rek nga ko mën a tuddal te ñi baax ñëpp ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan muy néegub yiw kon Ablaye Sylla yàlla na ko yàlla yéege foofu ci barke mawlud bii gàmmu gi ni ñu ko teewee ren na nañ ko ko teewaat téeméeri at yàlla yàggal fi xalif bi Cheikh Sidi Boubacar si guddalu fanam ba naal yi mu naal ci jumaa ji naal ko ci ëttu maam bii mu ànd ak rakkam yi àggale ko te nu bokk kook sago fekke ko keroog ñuy kàbbat di julee jumaa ji yàlla nan ko bokk fekke Ablaye Sylla taxaw ne Seydi Hadji taxaw ne Cheikh Sidi Boubacar si xalifa bi taxaw ne ak jul yëpp nu àndandoo joxe sunu yéene bi ak sunu mébét bi xaaj rawan lii de laa doon wax ci Ablaye Sylla te di wax Ablaye Sylla nag ni ko yàlla bu mu jéemati lu mu tëlee lii lii wedd gis bokku ci de mi ngi yal na yàlla guddal fanam te yokk suturam rawaan nag tey jii bu ne kër Seydi Hadji Malick rawaan ah dañuy sukkandiku ci sa barki turandoo sa barki turandoo maam nga ñaanal Ablaye Sylla ñii di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal parce que dañ jàpp ne ni egsi na parce que béy di mooy intendant wu kër gi bëy di mooy intendant wu kër gi lépp lu egsi si bëy di mooy si na si góor gi bëy di mooy lantinoor day jot rekk joxe ñun ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wataala moom bi nga xam ni moom mooy lantinooru kër gi yàlla na ko yàlla fal cat làmmiñ ak balaa ki nga xam ne moo def teraanga yi nekk Seydina Abdoulaye yàlla na ko yàlla doon suturo musal ko te mosal ko musal ko ni ni yàlla musalee mbaam si tabaski musalee ko ni yàlla musalee si ñeel si rëkk dugal ko si faxfir lana waliman min baynina nasabun bi mu Seydi Laaji Maalik waxoon si barke sallallahu alayhi wa sallam ah lii Seydi li moor wax rek moom moo si nekk parce que ñun lu mu gàtt gàtt gàtt def nañ ci fanweeri at ak li ñu doon gone gone gone mission bi góor gi xëccoowul lépp lu muy wax nañu yaatal te jàppalante te muñ di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla dolli jàmm teraanga ji yàlla bu ñu jéem lu mu tële seere baa ngi noon nag. sëñ Saliou ñëpp de diine jëpp bég uma bépp bég. boo Ablaye Sylla fal na boppam yàlla na ko yàlla fal dañu wax ni ku def lu rëy am lu rëy mawlud bi ki tax ñu di ko woote ku yàlla bind yontu yàlla Muhammad tax mu bind la lu am yàlla ngi ko amal ci leer yontu yàlla Muhammad kooku la Cheikhul Haaji Malick noon ala azimu laylal wiladata xisbatan isa lam nakkul isa takkul takul naxwal xaraamil odulu kon bu Ablaye Sylla jógee ci màggal loola dañuy wax ni màggal na ki jar ñu di ko màggal mu yontu yàlla Muhammad yal na yàlla yëkkati ko te yéege ko te yéegal ko bi jaay rasulillah waliyan yaqulu li maami wa inni saakirun wa faqiru umuri law fawatu wal qalbu tayyibun ghariban ladan wa huwa basir

البر أنت النسير فسل خالقي تحجيلا أو بي بمنيتي عساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لا ولا سالي نعم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي الإسلام معاجلا وكن منيرا لي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله ترى محمد سبيل الذي كل يقي وينير ما لا ولا سابر ذي معا سبسب عني كل من سيجور على خلي ستيف رضوان ربي كما غارنا في الخير حين يسير على سيد الفاروق من ربه رضا كبير كما قد سبق وهو وزير ومنه لسنوره أبغي له كما فاز بالنور وهو سفور على تجي من ماله نصره على زر سلك بالتسليس rahmaani rahim inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñu ngi leen di sant mboolem jullit yëpp di jiital ci cant gi la xarif général des Tidianes ku gis taxawaay bu mag bi nga xam ne le président Abdoulaye Sylla def na ko fii ci Tiwaawoon bëgg koo ñongal nag ci kër diine yëpp muy cant gu muy cant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne nii bépp mbindeef bu ñu bind ci yërmandeem ak ci leeram lañ la bind ba tax na cant googu la tàmbali tàmbalee ko fii ci Tiwaawan ba koo wëyal ci kër diine yëpp ci senegal Sénégal ba Njaasaan Medina Baye ak fépp foo xam ne nii dañ faa tàntal yonente bi sallallahu alayhi wa ba tax na daal cant googu lañ tàmbali nii mu koy ñu koy ñu koy ñu ko ciy jaajëfal di ko wax ni defati na lu man muy muy muy muy wàllum social lii moom ku gis lii xam ne lii yëfam la ba tax na ñi ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ci ñaanal yàlla saa boroom li nga xam ne nii mbébét na ko ci xolom yàlla saa borom defal ko lu kawe njortam yàlla saa borom defal ko saxaadatu daaray ni te am nañ ci yaakaar bu kawe ne yàlla saa boroom dina ko def ndax ki muy jëfal muy gën di mindeef kenn du ko jëfal mu neen waaw ba tax na ay mbiram daal mooy la ma doon wax rek mooy saa nafi bi laa darari maanaam ay mbiram amul dara lor mbir président Abdoulaye Sylla amul dalay lor maanaam saa yu ñuy dem di gën di dem jege bis bi rek muy 2024 rek échéance yi rek ay mbiram di gën a leer ci ñëpp ci doomu aadama yëpp ba tax na man waxewuma sama bakkan li may wax dama ko wax am fu ma ko teg te yàlla nañ fi saa borom déegi bàyyi lépp dina leer ci bëtu askan wi yëpp 2024 incha allahu rabbi li nga xam ne nii ñi ngi koy mbébét muy doon président de la république di Sénégal le cinquième président de la république du Sénégal saa bu ñuy dox di ko wuti rek ay mbiram dina gën a leer ci askanu Sénégal yàlla saa borom defal ko tawféex. ci bakki mawludu nabi am nañ ci yaakaar gu kawe kawe kawe kawe ne li ñuy yóotu suñ borom dana ko teg suñuy loxo. lim bi ñu am yéene joxe ci cantu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina toll ci junni nag incha allahu rabbi ñu tàmbalee ko fii joxe fi 220 nag di ko war a war a ñoŋal liggéey bi ba tax na daal loolu daal am nañ ci yéene ju kawe kawe kawe kawe. te am nañ yaqiin ne incha allahu rabbi yàlla saa borom dina ko jàppandal incha allahu rabbi buñ jógee fii danañ dem Canaba dem euh, Medina Baye dem Njaasaan wéyalee ko noonu ci kër diine yëpp incha allahu rabbi di ci ñaan jàppandal di ci ñaan lépp luñ ci fas yàlla saa borom def ci saxaadatu daaree nii te am nañ ci am nañ ci tawféex am nañ ci yaqiin ju kawe suñ jort ne bis bii ñuy dëgmal. ak yéene jiñ ci fas yàlla saa borom dinañ ci def njàppandal 2024 Ablaye la nekk le cinquième président de la République du Sénégal. comme ne ko sunu sëriñ ba sunu la sunu yaakaar tey ëllëg na mu ko waxee ci jës bu ne bisub yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci def lu toll ne dërëm maanaam am nga yoolub ko xare ba dara ak Hunayn ni muy wala bi xadri yi dirham yi muy lu mbir mu am solo ba tax na taxawaay bii président Ablaye Sylla am ci mbir mi am nañ yaqin ne yàlla dina ko ci defal ngëneel lu kawe njortam incha allahu rabbi ba tax na lim ci yéene mu nekk ci xolam nekk ci suñuy xol ñun ñii nga xam ne nii ñooy ay ndawam nga xam ne 2024 gii ñu jublu am nañ ci yéeney liggéeyal Sénégal yàlla saa boroom def ci njàppandal incha allahu rabbi